saytane nak day mbeur mo am doole te bari katan te bari fem te say say te ni muy yàqe bu sun borom dimbulu xam iblis dañu da fekk kuy julli fekk kuy nelaw mu yor wantaayam du upp ki nelaw am ci gor yalla ko gis ni ko ya bari caaxaan ki ngi nelaw amo soxlo ci mom ki julli amo soxlo ci mom xana di upp ki nelaw mu ni ko noppi limay def xamoo ci dara gis nga ki nelaw borom xam-xam la bu yeewoo julli gi bax ki julli gi yaqku bu yag way mu nu ko defal ki lay bañ mu mom lay upp bëgg mu yandor fofu la jamono toll ci ak yàq motax nit ñi seenu yëngutu bari na waye li am jariñ ci yëngutu bi mo neew ndax dañ ko tegut ci xam-xam ak bëgg rek la ñuy té te bëgg gu antu ko xam-xam yalla kenn duko ko ku neex andal la waye ku naqare andal la nak ku neex andal la ndax da santane wu lus monut ku naqare andal la nak ndax lim la sant day bëgg nga defe ko nim la ko waxe li ci sel rek mom la jëf ci am solo waaye yii bes yii xew mom ku ci mëna a wax bay nga wax ci te xam ne amut daf ni tardel rek muy rir mo xamanteni ni amut ben ndari ay goor ak jigen yo xamanteni ni daanaka bu dugg ci barab ba da nga nan ñi ndax bayyi nañ xel kiñ jëm dañ wax ni señ matar jëbu da ñew touba delu daru mot borom daru ni ko ana ana waa tuubaa mu ni ko ñonga fa Muniko ko noñ def ak koka mu ko góor ñaak jigéen ñaa nga yaale mu ko ñu ngay def lu mu bañoon man day bama ko fa defé la fa gej kon mag ñi warmaaloon nañ señ bi bari na ci mag ño xamanteni musu musuñoo ñemee dugg ci bir barat bi dañ koy dànn juroom fukki meter taxaw ñaan waye waaye ñemewu ñemewu wu ñoo ag yoy yep moy orma ji nga xamanteni ni mom lañ am seen digënté ak señ bi mom lañ doon bañ dara meg ci rek ndax nit ñaari lu min yeb ko lu mu min rek yeb ko señ bi nak ni nga xamanteni ni non lañ koy dunde léegi taxna orma ji warona dox sun diggante ak mom bari na ci lo xamanteni ni nun ñëpp xam ni orma jojim mi ngi wañu ko bu baaxa te teewul bëgg gaa fi nak waye orma ji mom mi ngi wañu gis nga señ bi turam yu bari du dara lu dul mag ñi dañ lay wan rek war ma ji ñu amoon ci moom mooy turam bu mag yi toujours dañ koy war daam ak sang ak seexu naag tedd ak yooyu yëpp mooy warmaal turu mag yi rek taxul ñu di ko warmaal war ma ji ñu joxoon sëñ bi ci boppam moo moo tax ñu di ko def loolu dafa mat a bàyyi xel bu baax a baax leneen bi ci des mooy sëriñ bi moo nu gën a xam lu baax màggal la tudd màggal 18 safar moom la tudd kon moo nu gën a xam lu baax kon yeneen yi ñu ci wane yépp ci ak wane ak xërëg yooyu ak ñàkk xam la su doon loolu amal njariñ dana nu ko wax sëñ bi desee lu dara ci lu baax lu mu nu war a wax la ca seenum xel ak gut nga xam ne suñ doole mënu ko sëñ bi fàggu na ko lu jiitu ndax bari na mag ñoo xam ne daf leen waxoon ni leen ni Tuubaa bu ma kenn laajati ñaam goo fa yóbbu ñaan naa fa luñ nangu te booba kenn nekku fa kon bari na ñu fàggu ci barab bi loo xamante ni nii fii du fi feeñe parce que fii dadul barab bu weerukaay yu jëf ëllëg lay doon ni sëñ Saliou mi doon waxtaane léegi dafa waxoon lu am solo sëñ Sooy bu ba sëñ bi di ko yëm da ko ni sama kër gii ci kër sëñ Tuubaa gi la bokk moo tax mu ni ko duma fi ñaan duma fi suul dara ndax wóor na ma ni fii la sëñ bi doon taalifi faw sëy ni te xam naa ni aw sa faw sëy ni boobee wareewul kon mooy loolu rek ñaan naa fi luñ nangu te booba kenn nekku loolu kon mat naa bàyyi xel ci orma noonu nag lu bari naagu moo nu ko yóbbee mooy jege guñ jege yëf yi toujours damay wax ni ab jénnéer ka ne ci biir néeg ba du ko gis waaye mat naa bàyyi xel bu baax a baax waaye àgg yombul gis nga dugub buñ koy jëlé ci kër gi diko yobbu ci tool yi ya. bi natt di def ci leget gi amna na fepp yu dess ci suuf yo xam delluwut ci saako bu ñewul ci leget ga loolu yéene ja ci borom amul amut Dabu bëggoon mu ag ci tool yi ya te demul lañ yóbbu ci tool ya tek ko ci taatu machine bi di tibbu di def ci machine bi machine bi di di farasu amna ci lo xam ne demut machine ba dellu si watu ca leget ga ci diggante ba loroon la nga xamante dem na ci toba ga ba sax jotté lepp saxul kon loolu agul bam saxé ba paré itam baykat ba da ca topat di wolli lam dag lolu agul ñu dem ba gubé commencé focc di am dugub amna ci lo xamné picci ye ko lek demul ci sàq ma ba ñuy ci gub yo xamné ci ca wala rot bañu lippi agul bañ démé di bojji amna ci yo xamanteni ni fañ doon walé ci sàq ma fa la des am yo xamné bañ ko yobbo ci kër ga di du sokk ci sokku kay ba fa la des am yoo xam ne bañ ko yóbboo ca machine wal ba di wal ma nga des ca machine ba bu paree dañ koy bale dem tuuri ko am ci loo xam ne ba ñuy tey ca indi bala des leen la soro ci cin la dañ koy booleeg raxasin ma dem loolu aggut am na ci loo xamante ni da lekk ba pare defe ni léegi àgg na am na ci loo xam ne booy galax ni ko muy génnaat àgg yombut nañ gën a sellal li ñuy def nañ bàyyi yàlla xel sëñ bi jataay yi muy def yépp loolu rek la ci bëgg mooy nu xam ni li ñuy def bu sellut yàlla amu ci soxla sëriñ bi yoonam nekku ci sëriñ bi moom lu sell rek lañ ko jox loola nag nu war a tàmbalee ci suñuy jëmm kenn ku ci nekk nag kook ci wéetaay natt sa bopp nag dëgg dëgg taalibe bi Sëriñ Tuubaa bii may tuddoo man naa xool sama diggante ak sëriñ bi nag càmbar sama bopp sama biirum néeg lay tëj def ko muy sama bàmmeel ma xoolaat saa bopp xool jikko yi ma baax le xool yi ma bon le te sama bakkan teg ma ko ma jéem ko dindi su yo baax ëppee ma julli ñaar rakka sante ko sun borom su fekente ne la mën upp ma julli ñaar rakka tuup te fasiyene yéene bu ma xëyee la weesu won mom duma du ci demat non lañ wara jappelé sun bop ci jubbanti te liggéey la ko sun tuwa waye waxi kesse rek wut njariñ te li wérte wor moy man nga nax nit ñi man na ma wax fi ñepp ba ñepp tudde ma mourid sadiq waye man mënumaa nax saa bopp mënumaa nax yalla man ngaa nax nit ñi nag moom trompé leen parce que seet nga gis koo xamante ni moom wax naa wax ba trompé nit ñëpp maam ni ko nit ñi jàppe moom wóor na ko ni ko nit ñi jàppe bokkut ak ni mu mel moom xamal na ko boppam ndegam yaa ko xam nag askan ak yàlla daa am ko mos a bind ab kaamil ba mu fe mu bind ca turam ñëw jox ko sëñ bi bi mu joxee sëñ bi kaamil bi sëñ bi di ko ubbi ba yem ci bi ni ko lii nag mu ni ko dama bëgg ku ci ku ci yemate xam ne maa ko bind ku jàngate bi ak si xam ne maa ko bind sëñ bi ni ko waaye yaa ko bind mu ni ko am maa ko bind mu ni ko ay xam nga ni yaa ko bind mu ni ko waaw mu ni ko yàlla xam na ko mu ni ko waaw mu ni ko ñaari xam-xam yooyu bu la doy dara ma tuccee dolli jëru ko li ñuy def nan ko seereel yàlla mun ko defee rek te xool suñ diggante ak sëñ bi mu leer waaye daal sëñ bi wax na fi tomb yoo xamante ni yépp mat naa bàyyi xel comportement yi mat naa bàyyi xel waxin wi mat naa bàyyi xel colin wi war naa bàyyi xel bu baax a baax siarin wi moy damin wi ci jumaa ak keneen bar bi siar yi nga xamanteni mom la dëkk bi laaj ndax bo ubbe sa nopp bi jox ko wa biti bi bari na lu ñi yak ci lu dul non lo xamanteni suñu comportement rek la waaye suñ tuba yebul yëbuluwul ci ñun rek la lolé nak la ci sëñ Cheikh Mbacke daan wax rek daan tuuma ñaar dong la ji nga def ak ji nga deful ji nga def soko ko bu ko defati ndax ya ko def bo ko wax rek bu ko defati ndax ya ko def jëkk defu nag bu yàlla wàccoon nit defoo ko sa yoon newu ci kon nan jéem a laxasoowaat bu baax a baax te bàyyi xel barab bi muy tuubaa gi nga xamante ni moom lañu suñ borom dogal nuy dëkkaale sëñ bi nu dëkk ak moom yàlla dogal itam nu doonuk njabootam te mu nangu noo jaboote nu am loo xam dañ koy rus jombale ko suñu diggante ak moom loolu kenn ku nekk ci ñun am nga ci wàccuwaay am nga ci itam taxawaay bu mat sëkk boo xam ne sa jëmm nga koy tàmbale mooy buub bi ñu doon wax rek man leen buub bi baax na waaye nañ jëkk buub xol yi ba pare door a génne mbalit mi ci biir kër yi mbalit mi ci biir kër yi moom génne ko jafewul waaye xol yi ci boppam moo wata nun xol yee tilim xol yee salte xol yi moo bari ay taq-taq te yu ci bari bakkananu ko teg du seytaane de saytaane tegu na najayta man bi ta'allaqu min as-sayatini fa sukrisma seigne touba mo mo wax waye gaay dañ ko fay baye la lo wax ñu la lolu saytané la musal nga mbolem ñi aju ci man legi nak da ngay set kon kon sak aju da werut wala bolé wo sa bop ci njabotu seigne bi ginaaw seigne bi neena musal nga mbolem ko aju ci man ci sayatin sayatini saytané yi mom ju jinne fi am wala wala ju doom adama te mina sayatin la wax man ñom ñep delloo suñu borom ak cant léegi bu la saytaane gàllankooree da nga koo tuumal waaye loola dal sa bakkan na la ko teg te mag ñi sax dañuy wax ne saytaane mooy saytaaneef rek saytaaneef da naaw da nga faa lañ la tànnal tànnal sa bopp loolee nga tànnal sa bopp musiba moo la dal moo ko yóbbu mooy saytaaneef mooy yu bari yi camlangal yi gars yi boolee ci yoon wi te bokku ci yoon wi moom lu ci baaxoon borom takk na ko mu doonu say camlangal yi des yëpp dara bokk ci ak koo ca mën a séen xamal ni bokk ci ko mën a doon rek bokk li ñu torompé nak moy diwa nga ci wala diwa ko jité nangam ak nangam nako ko daw jiite taxut mu bokku ci lolu dafa mata xam nit ñi da ngay am ful am fayda ci sa bop moy xam li ngay top ba na luñ ci rax lu dul nga man ko xam borom darul moti day jité jamo am ko am ko ko sabbal bim sëlmalee mu laaj ku ma sàbbaal ñëpp ni ciel mu laaj ñaar yon kiko sabbal ni ko mala sabbal ba muy dem ci kër gi mu ni ko nan dem ba mu demee mu may ko mbubb ak tubéy ak mbubb mu mag mi ci kaw daal ni ko digal naa la yow bul toppati ci gannaaw ku dul juum diggal naa la yow bu toppati ci gannaaw ku dul juum mu ni ko lu tax nga xam ni daa juum mooy li muy def da koy xam mooy tax bu juumee nga xam ni daa juum waaw mais nit bu ngeen àndee te li muy def xamoo ci dara bu juumee da xam xam doo xam ni dafa juum yëf yi ak daanukat lu leer naññ la loo xamee sëñ bi ci principe yu leer naññ la ko teg ujaahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan xadiman wal muhayminu shahid lu dul xam-xam bokku ci li nu dal lépp nag loolu rek moo nu ko teg mooy ñàkk xam ba pare bëgg a layal suñ ñàkk xam ngoog yi teg ko ci kaw ak daanukat kon nan jël waxtaanu Sëñ Abdu Lahat wii te fas ko yéene jariñoo murit nag loo leen mën a wax lu mu baax baax danaan fett su rek naan eskay Sëñ Tuubaa amul moroom sëñ Tuubaa bi mu amul moroom ba pare léegi nun ñu ko topp nag léegi ah, après nun nun nan xool suñu bopp sëñ Tuubaa amul morom loolu ay détail la nun ñëpp xam ne ne amul moroom mais nun ñu ko topp nag léegi nun lan mooy suñu wàccuwaay wala ci sëñ Tuubaa amul moroom jooju lañ jàpp ne ci lañ war a war a gën a ñi ci des déedéet bu suñu jikko yi baaxul taxul ñu gën kenn sëñ bi bi mu ñëw defar jikko ko tax a jóg suñ jikko yi buñ ko mënta soppi mëtuñu koy àndandoo te faaraxtu iblis la waxoo jami al mafasid nag dama tàggoog iblis ak lépp lu bon moo tax ma leen képp ku bokk lu bon topp ci gannaawam di ko woo du la wuyu ndax àndu leen àndut boo ko woo du la wuyu ndax àndu leen te waxoon na lu leer di la àndu na te it nee na woon képp ku bëgg a dëkk dëkkuwaay boo xam ne doo ko toxooti ba àjjana dëkk ak man ba àjjana dëkkal ci ndigal li suñu borom yi maskanul xadim la mooy sama dëkkuwaay moo xamante ni duma ci jóg ba keroog may tàbbi àjjana ku a dëkk ak man te dootuñu tàggoo ba àjjana ci ndigal suñu borom yi yow nga fas yéene léegi li yàlla digle doo ko def ba pare bëgg ko la suñ tuba amul morom ak buñ waxee nga ni duma dugg saxaar yannu samay bagage ndax yaa ngi ci biir saxaar gi parce que yaa ngi ci biir saxaar sëñ cooy daan wax lu am solo daf daan wax ni àdduna daa mel ni marax ñu taalub sébb gunóor yi naaw wut si ko ñu jox la mbalan ni lu ëppal bu ci ganaar gunóor tàbbi nee na kiy ëpp moom du ndax dañ ne bu ci gunóor tàbbi ñooy sëriñ ci waxtu wu ne ñu ngi woote ñu ngi créé daje ndax bëgg nit ñi yeewu bëgg ñu jaamu ji yàlla bëgg ñu bàyyi caaxaan yi ak foy te dëgmal suñu borom loolu rek la mooy seen yitte waaye nee na gunóor bu ci dëgër bopp ba daanu ci sëb bi nag sa bopp nga koy def loolu na ngeen ko xam moom kii upp moom du noppalu waaye gunóor bu ci daanu dëgër bopp ba daanu ci sëb sa bopp nga koy def fayum róor boromu juró koy def waaye ki yeew jur ga ca naaj wa xontut wëggut ba la ko yeru yatam léeg-léeg bu ko rombee ni tépp loolu ci jur gi la yem borom jur gi du ko yëg